di sant di sant say xarit di sant say am di jàmm nee na ko nag di gërëm baayam yii nga xam wëlbati ko uuf leen tee leen di leen noo xam ne bu seen baay ma dundu ba dawee su kon nee mi ngi sant juróom yëpp bi ko ñaareel nag di gërëm ñii mu may soxna ndax da ngeen a romb kër yu bari romb dëkk yu bari ñëw ba ci ñoom seen doom bëgg tabarkalla ngeen ñaan si ko si farata yàlla sunas Muhammad ñu may ko noonu kon loolu ku la ko defal mënu laa ndax jamono ji nag lu jafe la takk dund nañu doon ba may takk say yàlla mu jël nga yar doom fa ko war a yare mu mel na mu war a mel nga wëlbati ko mayu ko santal yàlla da loolu kon jaxatee na mi ngi santaat yàlla bu baax di gërëm ñëpp rax ca doole di gërëm dëkkandoo yi rawatina waa Diamaguène gii ñu dëkkal ci mbaax ak teraanga ak dëkkin wu rafet ak jàppoo boo xamante ni sax dëkk tabarkalla macha allah ci loolu la ñooy mi ngi santaat ñëpp mi ngi gërëmaat ñëpp di gërëm baayam bii nee na bëggul woon a wax ci gannaawu baayam bi mu yëkkatee kaddu looloo tax mu yëbbatee ma kaddu ngir ma waxal ko ko. may nee nag sama xarit ba la toog mooy siir male nga xam ne tabarkalla. suñu télévision fi mu ne ak këram soriwul nga doon artiste bi ñëpp xam yàlla boole la jaar ngeen xamante bu yàgg bokk nga ci artiste yi ñu noone ñu gën a leen jàkka ñoom jigéen yi ñoom paasu Màkka ñoom suukaru koor ñoom xaru tabaski yi ñoom boo yegsee ay bokk ñaar si ko leeral ci digg jaama yaa ko def ñu ku def dégg ku deful doo dégg dara waa tey mbokk yi ñu ngi jotale euh, kàddu yi waajur Alioune moo yëkkatiwaat kàddu nee Ali waajur Alioune nee na Alioune la yaroo moo ko ba keroog muy France nee moom li mu bëggoon a seede mooy mu xamal mbooloo kan mooy Alioune ndax daanaka li mu nekk France mooy ëpp li mu nekk Sénégal. nee ñun xamuñu ko tubaab yi ñoo ko xam waaye ñun waa Sénégal xamuñu ko moom nag mu bëgg leen a xamal kan mooy Alioune. nee a leeral ku a xam nga la a xam Alioune kan mooy Alioune. nee na Alioune artiste peinture boo xamante ne européen yëpp ñoo na tubaab yi boo leen laajee lan la ñuy jooy ñu ne lan moo tax Alioune xamuñu ko Sénégal. am na euh, ay xool organisation parce que tubaab yi ñoom seen yéene mooy ñëwoon fekkee takk bii pour xool lan mooy doxal organisation bi ak xew-xew bi lay demee mais loolu moo nekkoon seen yéene parce que xam nañ ne xamuñu kan mooy Aliou. d'ailleurs ñoom dañ ko sax danañ def ci benn manifestation benn exposition bu am moom dafay dem suuf Biennale de Nice moom mooy na tubaab bi sax nee nañu fexe ba Alioune waa Sénégal xam mooy kan ndax Alioune dafa am lu muy représenté ca Europe lu am am ama solo loolu nag mooy lan. mooy exposé exposé biennal boo xamante ne mi ngi am ca réew tubaab ya Venise kooku Alioune loolu lay loolu lay jëriñ te réew moom loolu lay représenté mooy représenté Afrique yëpp boobu nag mooy Alioune waaw kay nee na loolu la bëggoon nit ñi xam kan mooy Alioune ak kan la ñu may soxna jaare nii tabaarakallaahu nee na it ah mi ngi leen di gërëm nag di leen sant nee na surtout suñu goro yii ñu sant bu baax a baax tàmbalee ko ci galaset ay waajuram tabaarakalla ñëpp ñu ngi leen di sant ñu leen di gërëm nee na moom tamit nee na ñu ngi beral nuyoo ak gërëm ak cant yaayu Alioune ndax moom tamit am na lu ñu di a nee na yaayu Alioune dafa nekk une dame boo xamante ni bu ñuy wax éducation rek moom la ñu war a tànn jël ko. patron yi dañu ñëw ñu kër di ko sant di ko gërëm léegi éducation nee na am na ci benn doomam bu jigéen moom waajuru Alioune boo xamante ne ña koy ña muy liggéeyal ña koy ña muy liggéeyal. dañu xool yaram ak tegginam laaj ko kii kan moo ko yar ndax éducation bi nekk ci moom néew na comme bu muy nekk ci ab jigéen jullit loolu loolu nee na loolu kese la bëggoon a leeral pour xam kan mooy Alioune waaye nee na mi ngi soxna Diarra ak Aline seen diggante yàlla yàlla def ci njaboot bu barkeel njaboot bu ànd ak xéewal tabarkallaahu yàlla dëppale leen musal leen ci jat lafal leen ci seytaane nee na loolu moo doon ak kàddu yu mu nga xamante ne mënul woon a ñàkk mu yëkkati ko waaw loolu nuyu warahmatullah taala barakatuh fekk cër la bu ñëpp waxee waxuma dégg nga leneen non mën na ma wax tàmbali. nañu wax alhamdulilah rabil alamin nañu wax alhamdulilah rabil alamin dañ ñoon ñaan yàlla te yàlla defal nañu ko mu jëm ci ñu may tey ba mu juddoo dañ ñoon ñaan yàlla ñu may ko comme li am tey nii di ko ñaanal yàlla nag. yàlla amaat doom joo xam ne dañ ko defal lii ci kattan yàlla ak mbaaxam di sant yàlla bu baax a baax a baax di julli Seydina Muhammad ñu gën ñëpp yàlla bu fi yàqule sant nañ bu baax a baax a baax a baax a baax comme day waaw nee na nee na sunu mag la ñu àndal muy di ko ñaanal yàlla yàlla def mu yàgg te wér nijaay yàlla fi yàgg te wér yàgg say rek yàlla bu kenn manqué ku mag rek yaa jiitu xale capital ni gaa la mu di kebe ñëpp ak taxam ba mu ak cher war naa nga waaye ni nga am kontaan baax a baax daas bëgg nañu ñu seen ñu seen jàppal suñu kuréel ñëpp waxee waxuñu ñoo leen mag waaye wax dëgg yàlla maa ngi tur ah. yaa sa rak dafa ngam lu jëwjee jëwjee sama rakk ñoo bokk ndey ak baay seen yaay ak seen ak seen ak seen baay ñoo bokk ndey ak baay kon su ma wax dëgg la dul leneen Lamine man di Camara su ma wax ci mbir moom su ma wax ci man di Camara damay man di Camara aussi moom bu baax la ñun ne bàyyam mu yor a jàkk ji man damay dama ci am contact ko tega mën na dafa am loo xam ne dama koy fekk mën na Abdoulaye mën na ko laa fekk mën na damaa bëgg maanaam nga am loo xam ne am diine la nag bu baax di nuyu Ndiakhate Mbaye bu baax a baax Ndiakhate Mbaye mi boo gisee garab Mbaye bàyyi na ko am na lu tax dëgg rek ñoom benn boog lañu kootu kootu koo soog na ñëpp waaw léegi daal macha allah kàttan ak jaay maa mu tax rek li nga xamante ne mooy Galas Mbaye di ay xaritu baayu jaara ñoom ñëpp day baayu jaar ñoo bëgg a yëkkati ay kàddu wax kàddu xarit gi dara may la yii nga xamante ni tey ñoom ñooy maye seen doom ñoo ne dafa bari ci seen àndandoo yi